asalaamaaleykum ami chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ni ngeen ñuy toppee chaque fois ci suñu programme ñu leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës ci wàllum actualité dañ koy daal di euh, ak euh, ex DG bu euh, ONAS di Cheikh Dieng moom mi nga xam ne rek a ginnaaw bañ ko fale mu am ci 3 mois ci post bi nga xam ne rek ci lañ ko daal di dénkoon maanaam dal daal DG bu ONAS moom nag Cheikh Dieng ñu ngi xamal que ne daal dinañ koy wàccee ca la nga. nga xam ne rek moom lañ ko daal di euh, dénkoon en tant que directeur général de l'office national de la l'assainissement euh, du Sénégal maanaam daal euh, ONAS moom seex Dieng mii lee nag mu nekk ab DG boo xam ne moom lañ njëkk a wàcc ci gouvernement wu ki nga xam ne moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye li ni mel nag daal di jur ab polémique ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi tamit daal di ci xëyee di fàttali. moom Cheikh Dieng rek ni ki mois d' avril 2024 lañ ko daal di euh, teg ca boobu li post ni ki ni ki 31 juillet rek ñu daal di koy euh, wàcce maanaam daal 3 mois net rek daal di am euh, ca bopp bopp direction boobu li moom nag Cheikh Dieng ba léegi rek comme ni ma ko waxee tontu taskatu xibaar yi tey dañoo daal di xëyee loo xam ne rek mën tax ñu ñu da moom mu daal di ñu daal di koy dindi ca boobu li poste am ña ngay fàttali oto boo xam ne mi ngi jar 80 million boo xam ne rek moom Cheikh Dieng jënd na ngi wax que ne est du loolu waram ñu daal di koy euh, dàq ca bi li euh, mbir waaye tamit ci fàttali am na euh, benn audit boo xam ne Ousmane Sonko sàkku woon na ministre bi nga xam ne dénk wàllum assainissement maanaam daal Cheikh Tidiane Dièye ak moom mi nga xam ne moom moo nekkoon DG bu ONAS ngir rek ñu daal di indi rapport yoo xam ne dafay daal di jëmale ca boobu li mbir inondation yi nga xam ne amoon na fi waaye tamit ci fàttali 60 millions yi nga xam ne moom Ousmane Sonko ma nga doon wax que nañ ko audité ngir xam rek 60 millions yooyu li foofu lañ ko euh, duggal euh, est-ce que looloo waral euh, ñu daal di koy dàq taskatu xibaar yi naka daal nañ ci def ab point d'interrogation di sàkku di laaj rek est-ce que loolee léem moom moo waral moom Cheikh Dieng muy li euh, ñu daal di koy wàcce am déet mais daal lañ ca mën a euh, jàpp rek wala la ca gàttal rek mooy que moom mi li euh, daal dinañ koy wàcce ba wut ka nga xam ne rek moom moo ko war a remplacer di wuyus turu di wuyus turu Seny Dieng nekk ingénieur hydrogéologue géologue moom nag moom moo ko daal di remplacer ndiki démb lañ ko daal di xamle ca conseil des ministres buñ foo jógee ba léegi dañuy daal di dem feneen ca ki nga xam ne rek moom mooy la Lassana gan Gagny euh, Sakho ñu ngi xamal que ne daal dinay déposé ab plainte euh, jëmaliku ci ki nga xam ne rek moom mooy journaliste bi li euh, di aadama euh, Gaye moom nag Lassana Gagny Sakho moom mu nekk PCA nekk conseil d'administration bu APIX daal dinay porter plainte Adama Gaye mile ni ki mercredi juillet la ko waral mooy ci wàllum diffamation ak injure publique ndax ki nga xam ne rek moom mooy journaliste bi li di aadama gay dafa defoon ab postu Eh, ci page eh, Facebook am eh, di xamle que ni Lassana Gagny Sakho mili moom Adama Gaye ma ngi koy accusé que ne dafa daal di luubal xaalisu office national de l' assainissement du Sénégal maanaam daal ONAS ca jamono yi nga xam ne ca daal di nekkoon mu nekk nag accusation yi nga xam ni moom Adama Gaye moo ko porté sur Lassana ni Sakho mu gis que ne kat mbir moom li nekk loo xam ne lu wér la moo waral nag mu daal di ko yóbbu ca yoon waaye tamit daal di xamle que ni liggéey na ak état du Sénégal. calme ci jamono yi nga xam mu ngi nekk directeur général euh, bu euh, de l'OFOR waaye tamit ci période septembre 2014 ba septembre 2017 euh, nekk na itamit directeur général bu ONAS ci septembre 2017 jàpp janvier 2021 waaye nag nee na amul benn rapport boo xam ne rek mës na koo daal di épingle te suñu demee itamit ci site Cour des comptes wala plateforme yi nga xam ne rek moom dafa daal di laale ci mbir yooyu léegi xool gestion bu euh, ña nga xam ne ñoom la ñu dénkoon ay poste buñ fa demee rek mën naa ne dañu fa gis lenn loo xam ne rek moom ndiroo nag ne la Sénégal ñi saaxu dafa daal di tuur euh, détourner euh, dara li ni mel nag moom moo ko daal di xam li et que tamit ma ngay xam le que ne euh, boobi li euh, boobi les plaintes daal dina koy jébbal procureur de la république près du tribunal de grande instance de Dakar ngir rek ñoom ñu daal di mën a euh, saytu seen mbir nax gis na ne que ne kat li ni su bàyyee mu jàll rek du nekk loo xam ne rek lu gën la ci moom moo waral rek mu daal di génn di porte plainte ki nga xam ne moom mooy Adama gay journaliste kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko daal di koy teg ci ndo jógee dañuy dem ci Yacine euh, Fall ministre bi nga xam ne euh, moom la ñu dénk wàllum affaires étrangères ak sénégalais yi nga xam ñoo nekk foofu noonu ca euh, l'extérieur moom nag Yacine Fall. daal dina yëkkati ay euh, kàddu waaye tamit daal dina euh, jébbal ab euh, not boo xam ne moom ministre bi nga xam ne moom la dénk ci wàllum affaires étrangères ak l'intégration africaine moom nag daal dina jébbal ab not ña nga xam ne rek ñoom ñooy maanaam service diplomatique sénégalais yi note boobile nag lam ca daal di jublu rek wala la nga xam ne moom la jublu ca boobile not mooy ñi nga xam ni rek ambassadeur lañ ak consul yi nga xam ni l'ancien président Macky Sall moom moo leen euh, nommé woon ngir rek ñoom euh, ñu daal di mën a euh, delloo li nga xam ne rek moom mooy lenge yi waaye tamit daal di dellu si waat ci réewum Sénégal avant rek 31 euh, août li ni mel la ki nga xam ne moom mooy Yacine Fall daal di xam li euh, ca boobi li euh, note lii nag luñ ci daal di jublu rek mooy gën a defaraat li nga xam ne rek moom mooy affaire étrangère ci régime ki nga xam ne moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye ba ku nekk rek mën cee gis sa bopp bu baax a baax ba tax na rek ña ngay xam le que ne chef poste diplomatique ak consulaire yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régime bi nga xam ne moom moo fi daal di weesu ngir rek ñu joxe seen place euh, ñeneen ñoo xam ne ñu yees la ñeneen ñoo xam ne euh, bokk nañu ak jubluwaay ak ñi nga xam ne rek euh, ñoom ñoo fi daal di nekk jamono jii nii lépp rek ngir gën defaraat bu baax a baax. li nga xam ne moom mooy euh, politique étrangère bu euh, Sénégal ngir rek euh, ñëpp mën cee gis seen bopp kon ni mu ko waxee tantôt moo xam ci biir Afrique ak li nga xam ne rek moom mooy bitim réew sénégalais yi nga xam ñoom ñoo fi daal di nekk li ni mel la ki nga xam ne rek moom mooy le président daal di bëgg jaarale ko ci ministre boobile waaye tamit ñu ngi xamal kan diplomate yi nga xam ne ñoom ñoo concerné maanaam ñoom la note boobile daal di concerné muy Aboulo nekk ambassadeur bu Congo Doro Sy nekk ambassadeur bu RDC blessé ak ki nga xam ne moom mooy Abdou euh, Amadou Diallo nekk consul foofu noonu ca Paris ak yeneen euh, yeneen i ambassadeur ak consul yoo xam ne ñu ngi ci euh, dëkk yu euh, fasantikoo yi li ci mel ni euh, Lyon ak mantes la ak Milan ak li nga xam ne mooy Casablanca New York Abidjan ak yeneen secteur wala yeneen i ambassadeur yoo xam ni mbir mi rek daal dina leen di touché lañ leen di sàkku rek mooy que ñu delloo seen ay lenge jamono ji nag mën naa ni ñoom dañoo jub jubal jubbante bi dafa daal di dellu si waat ci li nga xam ne rek moom mooy wàllum diplomatie bi nga xam ne ñëpp rek ñu ngi doon xaar mu am benn mbir mu am solo jamono ji nag. changement euh, la ñu daal di euh, nemmeeku te ci fàttali aussi ni ki euh, vingt 2024 moom Yacine Fall ministre des affaires étrangères daal dinay xamle wala fàttaliku woon ne que ne euh, quatre-vingts membres ci wàllum personnel euh, diplomatique foofu noonu ca à l'étranger li ni mel doon na ko fàttali bu baax a baax a baax euh, te tamit not bi lii dafa daal di laal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi nekkoon ambassadeur ak consul waaye tamit colonel Ndaw ma nga doon critiquer bu baax a baax na nga xam ne noonu lañ doon politiser diplomatie sénégalaise bi nga xam ne gouvernement bi fi nekkoon doon na ko def mu metti woon ko lool lool lool waaye nee na li nga xam ne jamono jii mi ngi koy euh, nemmeeku ci régime bi li amaana xel mën naa euh, dal bu baax a baax a baax jëm ca euh, boobi li mbir ay changement yu yees la ñu bëgg ci wàllum diplomatique ak li nga xam ne moom la président daal di euh, bëgg ngir ñu gën a defaraat li nga xam ne euh, moom mooy euh, corps diplomatique bi gën a yokkaat li nga xam ne moom mooy souveraineté nationale jamono ji nag loolu la ñu daal di bëgg moo waral lépp loo xam ne rek yite woon na ko ñoom dinañ ci daal di xar seen tànk tubéy ngir leen mel rek mën a daal di saafaro fi la ñuy daal di wàcc wee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat di daje ndik ci kanam tuuti ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois rek di abonné ngir a am information yu waxte leer